dafa di bés bu am solo ci ndaw yi muy bés bu ñuy waxtaan ak ndawu mbaaw yi ci jëlum gaal gi ngir dem bitim réew te bàyyi fi koom bu ñu mën a exploiter bu ci nguur gi jàppee. ba loolu tax ne on a assisté récemment ci ay départ yu bëri yu xamante ne nii dafa jóg dafa soxeekoo Sénégal ñuy dem ci bitim réew dem ci ay réew yu mel ni Espagne léegi nag jeunesse boobu lu ñuy wuti en général mooy un avenir meilleur loo xamante ne nii peut-être jotuñu ko am fii Sénégal. te bu ñu xoolee si crise boobu noonu yëpp mbaaw dafa bokk si dëkk yi nga xamante ne ni dafa impacté par rapport à immigration clandestine parce que on a plus d'une centaine de personnes yu xamante nii jóge nañ Mbao léegi au delà du risque bi nga xamante ne nii loolu moom la am dafa nekk tamit loo xamante ne baaxul ngir dëkk bi parce que bu ñu xoolee ba ñun suñu jeunesse bi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a ngànk développement bi jeunesse bi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a nekk dëkk bi bu ñu leen gisee ñoom tey ñu bàyyi li ñu am fii nii pour dem tugal pour uti foofu un avenir meilleur ñun dañuy am tiis dañuy am njàkkara donc loolu moo tax ñun dañuy sawar ñëw participer ci journée yu mel ni xam ne objectif principal bi mooy def de telle sorte que jeunesse bi nga xamante ne ni mu ngi au niveau de la commune de Mbao jeunesse bi nga xamante ne mu ngi au niveau du Sénégal ñu mën a gis seen bopp si activité yi nga xamante ne moom la ñuy def au niveau du Sénégal léegi bu ñu gisee seen bopp ci activités yooyu day tax déjà seen xel du nekk si voyager seen xel du nekk si dem si biti seen xel du nekk si jël ay risque di dem tugal te tamit di leen gën a ñaaxaat di leen wax ne tey Sénégal dafa nekk dëkk bu xamante ne nii ñàkkul dara ñun boo xoolee tey la la cartographie géographique du Sénégal da ngay gis ne ne meew ñàkku fi gerte ñàkku fi ceeb au niveau de la vallée am na fi Sénégal bokk na si les premiers producteurs de noix de cajou mooy ndaamaraas bi tey boo demee dans des zones comme Kolda Ziguinchor Euh, boo demee dans des zones comme Daara zone des Niayes on a des légumes à gogo on a on on a du pétrole on du zircon on a de au niveau de Sabodola on a 700 kilomètres de côte donc man lima ma yaakaar tey jii mooy yàlla ji wàccoo nax ñun. ñun lu ñu gën a soxla tey jii mooy qu'il une très bonne gouvernance c'est loolu noonu c'est un appel que je lance à nos autorités Sénégal dafa nekk dëkk bu xamante ni ñàkkul dara donc ressources yi nga xamante ne ni dafay soxeekoo biir Sénégal dañu war de mu des biir Sénégal ba ndawi Sénégal mën si gis seen bopp ndawi Sénégal toog fii liggéey valeur ajoutée bi nga xamante ne nii loolu moom lay indi tamit ñun ñu mën si gis suñu bopp ba jàppale suñuy waajur donc euh, loolu laa amoon si euh, lu ma mënoon sànni si li nga xamante ne nii moo taxoon ñu ñu teew fi tey. projet OIM bi nag dafa ëmb émigrants yi ñibbi si ngir waxtaan ak ndaw yi ndax ñu moytu yoonu tukki clandestin bi ñu ngi dem fépp si biir Sénégal. pour waxtaan ak ndaw yi ñuy jaar ci yoon bu légal bi. vraiment ça fait presque maanaam trois ans de cela depuis bu ñu commencé kii projet bi trois ans yemuñu fi Dakar bon demoon nañu ay caravane fu bëri Tamba Kolda ba côté Saint-Louis ay Podor tout ça waaw c'est presque un peu partout ici au Sénégal vraiment ñun gis nañu daal vraiment kii bi mu ngi wàññeeku bu baax a baax mu ngi wàññeeku. dama di volontaire si OIM ndax dama see jot a jaar ba dellu si te ay jafe-jafe rek laa si jot a dund na xale yi delloo si seen xel te xam ni mën nañu tekki fii si seen réew. jeunesse bi li ma leen di lancé mooy néewuñu bu kenn tukki mais ñun dem nañ ci jaar nañ ci gis nañ ci jafe-jafe yi gis ci coono yi nekk ci yoon bi dañu bëgg ñu toog xam ne on peut réussir au Sénégal ndax Sénégal lépp a ngi fi y a l'agriculture y a l'élevage y a commerce y la pêche gerte saaf sax boo koy jaay nga def ci fulla da ngay réussir man mii ngay gis ni damaa dem tukki ba ñoo xool sottiwul ma toog defa sama cantine di jaay ndékki te alhamdulilah maa ngi ci sant yàlla maa ngi ciy gis sama bopp kon nag dañu xam ne Sénégal am na ay entrepreneur yoo xam ne mosuñoo yéeg avion te tey ku def 4 x ñu gaare seen 4 x ku teg sa immeuble ñu teg immeuble kon nag nañ dellu si xel yi xam ne njëriñ loo fekk te ku nekk sa wërsëg foo fekk nekk rek dina la fa fekk bés bi nag ñun waa mairie bu mbaaw dañu si ñëw jàppale waa OIM ak diwaan ji ngir yedd ndaw yi si jëlum gaal gi teg si di leen xamal ni am nañu si mairie ba bureau d'orientation pour ndaw yi am liggéey wala financement wala ay formation donc message bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy tey jii au niveau de la mairie sunu sunu sunu sunu naa naataango bii euh, nga xam ne moom mooy euh, euh, Thierno Sy ci ndigalu maire jël na initiative boo xam ne ubbi nañ benn bureau d'orientation ubbi nañ benn bureau boo xam ne lépp loo xam ne jeune soxla na ko ci wàllu formation ci wàllu financement ci wàllu emploi ci wàllu insertion boo ñu jegee nga ñëw dinañ ci am taxawaay bu am solo boo xam ne tey jii day nekk suite logique mhm. seen initiative bi ba pare dina permettre aussi tamit ku ci nekk ci jeune bi nga xam ne seen niveau permettre la na nga am euh, benn insertion bi ñu jàppale la si ba nga xam ne di nga mën a am liggéey booy suturloo suturlu ak sa njaboot. waaw c'est le malheur et c'est le ci Sénégal donc tey jii mën nga teg ay outils mën nga teg ay dispositions mën nga teg ay bureaux mais le plus souvent les jeunes ne viennent pas et pour preuve tey jii normalement li ñuy def nii c'est pour toute la jeunesse tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo am habitude di ñëw rek ñoom ñooy ñëw mais nag ñun aussi tamit au niveau de l'institution municipale du ñu xaddi ñu ngi def tout pour que au moins que la jeunesse de Mbao puisse s'approprier du projet parce que bu approprier au projet bi jeunesse bi gis ci boppam au moins ça sera une occasion ku ci nekk ci ñoom nga mën a daw ñëw laajte yërndu gis fa lu la intéressé nga jël ko jariñu si jariñu sa njaboot donc loolu mooy objectif bi jërë ngeen jëf merci